ngeen jëf mbokki internet Allô maam Cheikh Ndiaye Dieysoun duñ ko présenté ci réew mi ndax ñi mu jëflanteel xam nañu ko ñi ñu ko proposé xam nañu ko waaye nag ñi xam dëgg-dëggi asraar xam nañ ko ñi xam sax Dieysoun 313 xam nañu ko ñu yàgg gëstu ci asraar xam nañu ko maam Cheikh Ndiaye lañu jàkkaarlool tey muy jëmm ju yéeme joo xamante ni ci réew mi lañ ne Touba nekk koo xamante ni teg na tànk ci asaraar teg na tànkam ci li fi maam yi bàyyi woon looloo waral dañ koy bëgg di génne ngir waxtaan ak moom ci xam-xam ndax façon xam-xam bi muy waxtaanee niveau bi muy waxtaanee ak njariñ li mu am ëpp na dayoo yéeme na yéeme goo xamante ni warul sax di gëj a génn waaye jot gee ko dul may ak yaakaar yi fi bare ak jotu cabinet boo ko yoree ni nga ni nga war a xatee looloo tax tey dañ koo seet si ngir waxtaan ci njariñ li waxtaan ci cabinet bi waaye tamit waxtaan aussi ci xam duñ fàtte mukk actualité gis ngeen Ousmane Sonko boobu ba léegi coow li mu ngi ci kawam nee nañ Ousmane Sonko bayre gi mu am jigu ko ndax bay rek coow la ndax Ousmane Sonko sax arrestation mën na dal ci kawam heure bu ne loolu lépp dinañ ci waxtaan ak sëriñ bi ba ci Macky sàll ñi nga xamante ni war na leen a mën a samp sëriñ bi am na lu mu gis ci Amadou Ba sëñ bi nag du waxantu benn yoon lay wax ci at mi bu waxaatee déwén la te li mu war a wax ci Amadou Ba mi Macky Sall ne lay fas yéene samp te waxagu ko sax dinañ ci waxtaan ba ci coowal Benno Bokk Yaakaar wala APR bi nga xamante ni bërki démb seen coow li ëpp na ay loxo xeex bi ku nekk di xëcc sa intérêt bopp ba lool lépp am dinañ ci waxtaan ak moom waaye Sadio Mané ci jëmmi boppam am na lu ko sëñ bi gisal balaa boobu dañ koy bàyyi moom suñu sëriñ bi suñu waaju suñu xarit bi maam Cheikh Ndiaye jëy sun mu nuy mbokki internet yi nga xam ne ñoo koy seetaan sëriñ bi bismillah aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi saxli sadri wa yassir li amri waxlul xuqdatam min lisaani yafqahu xawli mbokki jullit yu baax yu tedd yi ñoo ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare rawatina yéen ñi nga xamante ne yéen dox seen tànk bi egsi fii jërëjëf. jërëjëf sëriñ bi eh, dama naan ñila xam dëgg sax duñ def ñoom ba ñëw ci yow ndax. gis gi nga leen di gis ci wàllu seet gis gi nga leen di gis ci dëgg-dëgg boo jàkkaarloo ak ñoom ñi ma yërëm mooy ñi nga xamante ni xamaguñ sa niveau ci wàllu seet dama naan jamono jii ci réew mi faw ñu bàyyi la ci xel ndax seet maîtriser nga ko maîtriser boo xamante ni faw nga waxtaan ci tey. waa jërëjëf ku baax ki euh, loolu ñuy tudde seet te mooy listixaar euh, dañ ciy def seet goo xamante ne gu leer naññ la da ngay wax nit ki li ko commencé ci boppam ba ci euh, suufu tànkam mm. te lépp loo xamante ne wax nga ko ca loolu moom du ca mën a dindi wirgil lépp lu aju ci moom nag ak lu mën a doon lépp di nga ko wax te damay wax tamit listixaar am na solo am solo goo xamante ni nit ku xamoon doo toog 3 mois wala 6 mois yoo xam ne def ko ndax listixaar moo tax yow sa jëm nga xam dëgg-dëgg yow la kan moo tax tamit ngay xam fan ngay teg sa tànk moo tax tamit jafe-jafe yi ngay dund ak gàllankoor yi nekk ci yow ak jafe-jafe yi nekk ci yow ak mbir yi di dëgër ak loo wuti mu won la ginnaaw loolu lépp ci listixaar gu leer nga mën a xamee ne lii lan moo ko waral mm-hmm. soo xamee li ko waral ba pare li koy dindi day yomb mooy waral nit ki suñ ko li listixaaree dañ koy wax am wax ko biddiwam wax ko rawaanam mm-hmm. wax ko bisam wax ko kulóoram wax ko léppam loo xam ne dafa aju ci moom te saxaar gu leer du bàyyi dara dara dara dara ci nit ki lépp da ko koy leeral lim ni mu war a dund ci at mii at mu bees mii te ñi ngi soog a dugg atum jullit ñi ñu ngi ciy ndokkeel ñëpp di ci ñaanal ñëpp jàmm ak salaam ak mucc li nga war a dund ci an mii lépp li saxaar gu lee dala koy tënkal nga xamante ne boo jaaree ci yoon wi doo ci gis benn pakk ndax pakk yi dala koy wax wax la la cay sarax ak yan bis ak yan heure nga nga génn ko dund sa atum jàmm ak sa atum salaam. da wax léegi sarax sama xel dem ci sarax yi ngay yi nga xamante ni fonk nga ko boobu ba léegi yaa ngi wax ci sarax yaa ngi wax ci sarax mais mel na ni am na ñu ko déggagul sëriñ bi mën nga ñëw dikkal sarax ak ay njariñ. waa sarax moom képp koo gis mu koy deltuloo ginnaaw wala képp ko gis mu koy négliger jàppal na ko amul xam-xam mi ngi négligé lu mu xamul hmm? ndax mbooleem lu nit di jëfandikoo ci ci ci lu jëm ci ñaan yàlla gisuma ci lu jëm njëriñ sarax ndax sarax wax nañ ne dana fànq dana fànq eh, lu mat juróom-ñaari fukki deewe ni ñaaw comme ça lu mën a fànq dee nga xam ne dee mooy doytalu yemukaay bi waxuma la kon ay jafe-jafe ki gàllankoor rek mbir yu dëgg rek yooyu hmm. yooyu kon da cee tuuti hmm. te sarax nit ki mën naa jékki-jékki xalaat dara mu neex ko ci jëmmam mu génn ko sarax ngir yàlla te yàlla rek tax loolu nit ku sañ nga ko waaye bu dee dafa am mbir yooyu lijjanti wala sa sa tëjug bopp wala sa mbiri bopp dëgër wala dara loolu il faut que da war a xam ban sarax nga war a génne mhm. ak ci ban bis nga ko war a génne ak ci ban heure nga ko war a génne mhm. te sarax kes nit ki euh, soxla la war a am soxla bi nekk soxla bu jàmp sarax kese la mën a def jooni jooni soxla boobu faju jooni jooni sarax képp moo mën jooni sarax moo mën jooni jooni nga xam ne sarax bi nga mën a génne léegi soxla soo faju sarax boobu nag du saraxu làmbatu sarax bu wér lay doon boo xamante ni nii danga koy teg ci xam-xam teg ko ci heure teg ko ci bis nit ki génn ko dem li muy lijjanti so sotti am na ci sarax yoo xamante ni sax nit ki bu xëyee suba di lijjanti rek def ko kenn koo xamante ni mën na koo gànt ko loolu muy lijjanti amut ak lu mën a doon ci àdduna rek loo doon ak say morom moo xam mu jëm ci wàllum lu mu mën a doon du ma tudd dara naa tënk lépp rek mm. ndax li ñuy jëfandikoo ci nit ñi ci àdduna lépp nit ñi ñoo koy jëfandikoo waa loo mën a xëy soxla ko ci sa àdduna ak lu mën a doon ak fa soxla sa mën a bëri am na ci xeeti sarax yoo xam boo xëyee génn ko soo demee loolu faju boo xëyee génn ko soo demee aji faju lool nag li mu si jublu bëgg nit ñi xam daytalub sarax njariñul sarax ak doole gi sarax am doole ku ko xam du ko négliger. mais sëñ bi ku buñ duggee ci cabinet bi sa cabinet bi ku ko xam li tax ñu gën koo ràññee mooy garab yi nga xam ne yaa ngi koy joxe ci cat dindi cat raxas sa yaram ba nandal sa yaram sa yaram neex féex ba lépp mën a dikk. waa cabinet mi ngi Touba yaakaar naa ñëpp xam nañ ko mais bu dee ñun li jëm ci wàllu eh, cat liñ ciy joxe jot li ma biteel bi ma wane ko nit ñëpp man cee teg seen bët nga xamante ne lii nga xamante ne day dox ci wàllu cet ak yaakaar muy tas ak yaram wu tëju ak yaram wu dëgër nga xamante ne pour ma tudd ko benn baat mu mu mën a yóbbaale lépp lii ma tudd ma tudd ko raxas yaram. ndax yaram lu ko mën a taqal taq na rek suuf mën na koo taqal leneen leen mën na ko taqal mhm. lu ñuul mën na koo taqal lu weex mën na koo taqal lu ne mën na koo taqal mais heure boo ko raxasee ba loola seet rek loolu raxas yaram lañ koy tuddee lii nag raxas yaram loo xamante ne dafa nekk ci sa biir yaram ba pare indil la ay gàllankoor ak ay jafe sa mbir dara mënut a dox loo yaakaar mu tas loo nit dig du la ko mhm. nit ñi dañuy dem ba yow da nga nit ñi dañ lay nax wala nit ñi dañ lay war te fekk nag gàllankoor yooyu ci sa jëmm la nekk loolu nag lii moo koy dindi te lii man bu ma la ko joxee wax la ñaata fan nga koy jëfandikoo nga jëfandikoo ko su cat xasee dañ ci yow dangay am garanti 6 mois yoo xamante ne cat dootu la yàqalati. du la yàqalati dara. ci diiru 6 mois bi cat du la ci yàqalati bu 6 mois bi matee da ngay ñëw jëlaat ko sangowaat ko moom mu yóbbuwaat la diiru 6 ndax ca cat dañuy wax ne cat mënut a dañ ci nit définitivement. cat du dañ ci nit définitivement loolu mënul nekk. cat am na ñu koy misaal ci yére bi nga sol mu tilim da dem fóot ko bu tilimaatee nga fóot ko cat day nekk ci yow nga raxas ko mu dañ mais day ñëwaat mm-hmm. am na ñu koy misaal tamit ci garab gu sax nga dagg day saqaat wala nga watu day karaw gi day ñëwaat cat noonu la mel mais nag lii ñu lay jox diirub 6 mois lan la koy garanti boo ko jëfandikoo wee ba pare ci diirub 6 mois bi cat du la ci yàqal cat du la ci gaar cat du la ci indi la jafe-jafe ndaxte da ngay jàpp ne nit ñi tudd gu bari gi moo tax nit ki di am eh, di la indi cat ah kay loolu am na ñi tudd tudd gu bari am na loolu moo tax cat di ñëw ci ñoom mais am na ñoox xam ne heure bu ñu suba ba ngoon force ñu tudd seen tur mënul ñàkk ci journal yeeg ci télévision yeeg ci mboolem ressources yëpp dañ leen ciy tudd ci jotaay yëpp waaye est ce que ngeen lan leen cat yàq gun ndax du ñoo bayiwut seen yaram ñi ci bàyyi seen yaram ci wàllu cat gis nga xeeti gàllankoor yi ñu am ak xeeti jafe-jafe xeeti jafe ñu am moo tax lii ci wàllu cat ko tax a jóg koy sangoo euh, mu dañ ci yow ba pare garantir la six mois mais euh, garabu cat bi li muy bëri bayre li muy siiw am na bu ko gën a siiw mooy magam mooy garab yi nga xamante ni yaa ngi koy def ci wàllu kaaraange sëñ bi tamit tey dama gëstu ba ñëw doog a ñëw ci yow wàllum kaaraange sëñ bi yaa ngi ci yaa ngi ci liggéey lu doy waar waa jëmmi kaaraange nit ki heure boo koy dindilee cat wala nga dindil ko li nekkoon ci moom wala nga dindil ko liggéey wala nga defal ko lu nekk kaaraange ngay def mu toog ci yaram wi ba dara dootu ko mën a bëttati ndax kaaraange bokk na ci lim lay defal mm. nga xëy sa kër di dem di liggéey am na ñoo xam dañuy xëy seen kër dem di liggéey duñ ñëwaat benn ñu def accidenté mhm. wala ñu agressé leen mhm. wala ñu sax ñu def leen leneen leen leneen loolu lépp ñàkk kaaraange da koy waral am na ci yoo xamante ni boo xëyee suba def ko wala yoo xam bu ñu ko xasee defal foo dem ak lu mu sori sori da nga ñibbisiwaat ci sa njaboot ci jàmm ak salaam te bu la nit doon jéemal yee ñaar da ngay mel ne ku takk juwaloo day hmm? jëm gauche nga jëm droite bu la nit doon jéem a yàqal tamit li mu def lépp day delluwaat ci kawam nit du la mën a liggéey nit du la mën a catu nit du la mën a sànni kort nit du mën a def dara lépp lu nu jéem ci yow day delluwaat ci yow te loolu kaaraange la goo xamante ni dañ koy liggéey jox la ko mhm. wax la nga jëfandikoo ko ñaare sax boo koy sangoo ci cin nga koy sangoo ci cin ci weñ lan la koy jox nga sangoo ko te boo koy sangoo tam da ngay taxaw ci kaw weñ ci cin li nga koy def taxaw ci loo xam ne weñ la doon ban weñ wala dara sangoo ko nit mënu ci yow dara jéem jéem jéem bàyyi fànn yëpp nag la boole te kii jéem ci yow sax mais bu xawee am xam-xam wala mu xaw am gën tuuti sax bu jéemee ci yow bu guddee danañ ko woon say mbir mhm. li gën a sedd ci moom mooy bu xëyee mu baal laaq moo tax nit ki wut sàggane kaaraange ndax olof Njaay day wax ne bala nga naan naam nekk fa nekk fa nag mooy nga am kaaraange ba lu ñëw fekk la fi mais man nga am alal am lépp am bayar am lépp ba pare amoo kaaraange loolu mooy sero la fooy sa bopp yaakaar naa weesuwul loolu waaye tamit leneen loo xamante ni ku wax lii wax leneen li ku wax rab ku wax euh, li nga xamante moom mooy cat wax kaara wax kaaraange di nga wax rab mi nga xamante ni sonal nañu bari sonal na ku ne yàqal na lu ne nit sëñ bi rab gi nga xamante ni yaa ngi koy seppi ci nit waa rab moom euh, jox ma kii ma wax sax damay wax ne man maa ci ëpple ay résultat ci Sénégal gi ñu nekk ndax damay wax ne li ma la ciy jox ñetti fan lay am mu dañ ci yow ba seet wicci te guddi gi nga ko njëkk a jëfandikoo wee ciy gis ay résultat boo waxee faaw di ma woo wax ma li nga gis lépp te ñaareel bi te bu génnee ci yow dootu ñëwate ci yow te ñaare am na ñoo xamante ni tëdd rek nelaw yombu leen dañuy tëdd bala ñoo nelaw dañuy sonn lool te moo koy waral mm. ndax yaram wi diis week yaram wi week yooyu yëpp ak yaram yi di mett ñii day dox ci seen yaram yi seen digg yi seen yi seen yaram yi di tàng ak seen tànk yooyu yëpp rab da koy yaram ndax day déplacé wu ci nit ki mm. waaye lii boo ko jëfandikoo guddi googu nga xamante ne dawoo nelaw da ngay nelaw ba biddanti boo yeewoo sa yaram wi day woyof tooy tooy tooy nga xam ne am na lu nekkoon ci yow bu fekkoon ne dafa am cinquante kilos wala dafa am vingt kilo yoo xam ne dafa nekk ci yow te bokk ci day dañ ba sedd wicc wicc wi nga xam ne yow am na lu yokkoon ci sa jëmm ji a bokk ci rab moom yaakaar naa ne bu ko ñëpp xamoon ni ñu koy faj yaakaar naa kenn dootu ko fajootu fenn fu fii mhm. te dafa simple nit ki foo mën a nekk mën nañ laa yónnee garab gi nga jëfandikoo ko faj rab sa bopp ndax bëri ñoo xam ne mën nañ koo faj sax mais ñoom lañ koy faje mun a déplacé wu mhm. lañ ko faje seen kër lañ ko installé foo mën a nekk ci àdduna bi da ngay wu ñëw ñu mën laa faj boo ko mën du la du la mën a faj bii nag foo nekk ci àdduna bi dañ la koy yónnee wax la ni nga koy jëfandikoo nga faj sa bopp mooy ngelawu seytaane ak rab képp koo xamante ni mi ngi sentir ci yaramam yaram wuy diis wala muy jékki di am yaram wala muy jékki-jékki di jeex wala yaram wi am lu ciy dox di déplacé wu ci yaram bi yaram wi di tàng jër wala bopp yi bi ginnaaw taksaan ba di ginnaaw timis muy métti loolu lépp rab daf koy def loolu lépp nag lii da koy dindi. waaye leneen loo xamante ni yaa ngi ci ndax wàllu rab moom <laughs> yaakaar naa natable wuñ ci résultat yi ngi ciy def ak yeneen ak yeneen Euh, sëñ bi jigéen ñi mënul am doom ah, rab da koy def leneen ak leneen dina ko waral waaye jigéen ñi mënul am doom laa yéene tey ñu déglu la. waaye képp koo xamante ni suñu borom dafa dogal ne da nekk ci si biir néegu sëy di sëy te mënoo amul njaboot lii de dañ cee dugal sax yërmaana xam lu ko waral. ñaari koo ci gis am na ñoo xam sëy nañ fukki at mënuñu am njaboot ñi sëy nañ juróomi at mënuñu am am njaboot moo tax ñaare boo ñëwee. dañ lay laaj lu tuuti jox la yëf yi mhm. na la boo amee doom ba pare nga ñëw indi la des ci ci li nga doon joxe. loolu boo def ci ak jàpp ndal te lii képp kun ko jox fexeel ba sa borom kër na fi nekk ndax da am njaboot moom hmm? da jël amu moom da ngay jël ëmb moo tax bu la koy jox sart yi bokk na ci na fi sa borom kër nekk sart yi bokk na ci na fi sa borom kër nekk ndax da ngay jël ëmb mooy eh, lii eh. mooy mooy mooy mooy fas gi fas gi doy waar la ñi nga xam bari nan lool ñi ci mën a seere tamit bari na ñi ci mën a seere nga xam ne toog nañ di raab yegg ñoo am doom ñu jox leen ko ñuy sant di gërëm ba bare ma man cee seede lu baree baree bare eh, lii laa leen doon wax ndax suñu maam Cheikh mi nga xamante ni moom lañ dalal tey nekkul boroom xam-xamu kase waaye boroom xam-xam la boroom asraar la looloo tax njariñ li bari lool lool lool ci moom yaakaar yi itam bari fi buñ jugee ci loolu dama am lu ma tëboon te faaw ma dellu si muy ubbeeku wax nañ ci cat wax nañ ci rab wax nañ ci raxas yaram ak loolu lépp mais loolu lépp am na lu ko lu ko war a jiitu yaakaar na wala lu topp ci ginnaaw muy wàllum ubbeeku sëñ bi waaw ubbeeku moom li ma ciy jox nit ki su ma la ko xasee jox yow mënoo tàqalikoo te xaalis ci sa xaalis doodoo tàqalikoo moom li fekk yaa ngi am sunguf si nag loolu lañ bëgg sëñ li fekk sunguf si mi ngi jeew xaalis mënoo tàqalikoo moom ndax sunguf si kenn du ko sangu te doo ubbeeku te mooy mooy mooy mooy lii nii moo nekk émission bi bu ñu la ko joxee parfum bi lan la koy booleel parfum bi gis ngeen ko loxo ubbi ko la parfum bi tudd suñ la ko joxee moom lan la koy joxaale sunguf si moo nekk nii yaakaar naa mën nga ko euh, gën a gën a gën a jël xaaral yi moo nekk nii lii mooy sunguf si ñaari nit mënuñu ko cee jox lu ëpp ku gi ndax jëmmi sunguf si nekkul sunguf soo xam su yomb la su neex a wuti ak yooyu déedéet nit mënuñu ñu cee jox lu ëpp ko duggee waaye wallahi wa rabbul kaaba suñu la ko joxee wax la ni nga koy jëfandikoo mm-hmm. parfum bi yombut am ñaare moo tax ñoo la koy joxaale suñu la ko joxee mënootoo tàq hmm? ko joxee nga am ko di ko jëfandikoo xanaa bu jeexee su jeexee da mën naa taxaw waaye heure boo koy am moom xaalis di la dikkal xaalis di dikk rek moom moom moom eh, sa yaram bi mooy neex te lu la nit dig tamit dala koy jox lu nit di da koy yëkkati jox la ko te mooy mooy mooy mooy mooy bii nii. waaye sëñ bi nit ku nekk domaine ba nga ne am am na messi bu ca ne nit ku nekk domaine bi nga ne am na loo xamante ni moom moo tax ñu xam la ci moom moo tax ñu bàyyi la ci xel waaye dama naan Mbaye Rek Ndiaye jamono ji ci réew mi yaa ciy messi te Mbaye Rek Ndiaye ci réew mi moo tax sax dama naan tur bi yegg foo xamante ni jëmm yeggu fa ndax Mbaye Rek gi nga xamante ni efficace na efficace goo xamante ni réew mën nañ koy rang ci sa jëmm ji suba ba ngoon waa lii moom bu lépp loo xam ne yow soxla nga ko te bëggoo mu tàqali ko yow fexeel ba ndox mi bu ma la jox bu ko loolu laal sa sa boo koy wis sa place sa portable ànd la ko lépp loo soxla ci sa jëmm ànd la ko. sinon ko jaay. ndax lépp loo ko laal la jaay ko te doo ko tey. bëgg jaay ma ñàkk bañ jaay. loolu li nga soxla ci sa jëmm nga xamante ne ku la fa yoon lu gën a bëri la nga ko jëndee woon ko jaay fexeel ba loola lii bum mu ko laal laa wax loolu lay bañ. na leer lépp loo soxla nga xam ne bu la lu boo ko jënd woon ñaar fukk nit fay la ñeen fukk doo ko jaay fexeel ba ndox mii bu mu laal laa wax ndax lii lum lum lum laal loola jar bëgg jaay bañ jaay tax réew mi di ko rang suba ngoon jaay ba njaay mooy lii nii boo foo ko def moom nit ñi duñ fa jóg place boobu nit ñi dañ ñoom di dugg ak di génn suba ak ngoon guddi ak bëccëg même yow sa jëmm ji sax nga koy raani sa loxo di ko raayoo sax nit ñi dañ lay sopp nit ñi da jar xam nit moom kenn amul njëgam waaye yow da jar ci sa jëmm. dañ lay sopp ba ba ba di la xëccoo. macha allah ah dañuy ñëw nag ci ndaw li doog a dem ci actualité ndax bu ñu waxee lépp lépp lépp sëñ bi te waxuñ ci nopp boole ñaari nit dafa mel ni sëñ bi dañoo dañoo raay sax xam-xam bi rek jëfan wax dugguñ ci dëgg-dëgg sëñ bi nopp boole ñaari nit dama dégg ñu ne dafa jafe lool ci dëgg. nekk na loo xamante ni yombul ah. mais mais man ñaare noob bi may gën a def te gën cee sawar ndax su ma ko defee pare dama ci am tiyaaba mooy ñaar ñiy sëy ba pare sëy ba yëngu noob boobu dama ciy sawar te boobu ak dafa dafa yomb tamit ndax ñaar ñi nekk pour nga noob leen dafa yomb mais ñi nekk à pour nga noob leen tamit dafa am leneen lu muy laaj ah. moo tax ñaar ñi nekk di yeewandoo di añandoo di lekkandoo di naanandoo mën nga leen defal noobu 24 heures mu jàpp. waaw mu jàpp ndax ñoom ñaar ñoo nekk. loolu lu yomb la lu facile la doo ci daj benn coono. mais nag bu fekkee ki nekk a distance am na noob yu wér yoo xam ne koo ko def du rëcc faw day ñëw hmm? mënul rëcc day ñëw. mu jaar mu jaar dikkaat liggéey boobu nag mooy gën a métti liggéey yëpp ñaar ñi nekk ci biir néegu sëy bi. man dama koy def ba pare damay jubal ay nit ba pare nekk ci am am am ci tiyaaba waaye nag bu dee à distance bi am nañ ci lu wér loo xam ne bu nu ko liggéey kooka day ñëw faw day ñëw moom da koy neex mu ñëw mu naqari mu ñëw même bul na ko liggéey la par dañ la yow bul ko woo ndax sart yi bokk na ci bul ko woo bul ko lijjanti ndax pour nob gi jàpp mooy moom mooy ñëwalaat boppam. toogal rek toogal ba mu dikk ndax nob gi buñ ko defee ba pare moom xeetu bopp bi métti la koy def te bopp bi dinaa li muy métti lépp xelam mi day nekk ci yow même bépp bu bu bu méttee ba mu tëdd di nelaw daf lay gis ci biir nelaw yi mooy mu xamal na ko jëmm ji jëmmam moom ci boppam yow lay laaj. loolu dama lay jandeer. waa daf lay bëgg a gis wala mu bëgg laa dégg téléphone. lu fekk deful loolu du am jam boobu tamit dama ci xaw a teetu du nekk ku ñëw rek ma defal loo bala boo ñëwee wooma dinaa la posé ay question boo tontee question yi ma soog a dugg ak ci procédure liggéey la ko bu question yooyu nag boo ko posé wu du ma la ko liggéeyal waaye nee naa noob bi ma gën a sawar te di ko liggéey lu bëri di ci am am ay ndam di ci am lu nekk mooy ñaar ñii fexe di say amee jafe-jafe ma ñëw defaraat leen. li moo waral euh, soppe yi am di jàmm yi lépp bëggoon mu génn fii ci Allô Sénégal ndax njëriñ li nga xamante ni bëri na ci moom moom maam Cheikh Ndiaye mi nga xamante ni tey mooy suñu ganu tey yaakaar naa nag dajal dalal nañ ku ne dalal nañ boroom xam-xam bu ne waaye xam-xam yi nga xamante ni génn na ko fi boole kook yor cabinet di ko di liggéey ci liggéey yu mucc ci ay ci ay garab ci ay produits macha allah rek lañ ci mën a teg sëriñ bi ci actualité lañ bëgg ñu jàll ci Ousmane Sonko Macky Sall nee nañ demul troisième mandat dëgg la waaye ndëgg sërëx yi nga xamante ni mu ngi koy waaj la xel yi teey Amadou Ba lay waaj a teg ñi nañ mi ngi déggante ak Idrissa Seck ci suuf bàyyi mu dem ñi nee nañ sax jamono ji Boun Abdallah Dionne lay waaj a samp sëriñ bi naka nga gisee loolu ak ci baatin lu mu la waaj. bu dee nag ci doxalinu réew mi. réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te ku nekk am nga euh, kàddu wax ci ndax bu fi jàmm amee ñun ñëpp ñoo koy maase dundu bu fi leneen amee tamit ñëpp ñoo koy maase dund li jëm nag ci côté Ousmane Sonko dañ koy ñaanal euh, jàmm ak salaam xëy na li nga xamante ne euh, ab yan yan boo gis nu yan ba diis diis teeñ ba noonu lay toll mm-hmm. nu mbiram toll rek noonu la ay nattoom di toll ñu ngi koy ñaanal suñ borom li gën ci moom ak li mu bëgg yàlla defal ko loolu ginnaaw bi jàllee nag Macky Sall ñu koy sant di ko gërëm ci kàddu gi mu génne ne moom dootu def troisième mandat te mu nekkoon ci xeli sénégalais yi ñu ko doon waxtaanee di ko def fu ne ci plateau yi mu yeewi leen ci loolu loolu danañ eh, ko ci jaaraamal. bu loolu lépp jàllee nag jëmmi eh, ki nga tudd léegi muy Amadou Ba eh, nekk na nit koo xam ne ku yaakaaru la. moom Amadou Ba waaw moom ku yaakaaru la daal. yaakaar du ma ci mën a xuus lool na waaye foofu laa jëm waaye ku yaakaaru la. ci maanaam biddiwam moo fenq wala euh, dafa toll ci taxawaay boo xamante ni tey jamono ji mën nañoo am yaakaar ci moom wala dafa taxaw ci mystique wala nu mu demee. Euh, man fi may gën a waxee mooy moom nit ku baax la nit ku laabiir la. moom Amadou Ba moom Amadou Ba. te tamit moom si jëmmi boppam. Mm-hmm. xam nag suñ boroom wax na ko démb sax ne nee na ak nguur moom nekku na loo xamante ni dañ koy jàngale ci école wala dara déedéet nguur yàlla mooy tànn ku ko neex mu jox la ko képp nag ku ñu yàlla tànnal ci mii te mooy Sénégal ñun nangu ko ndax tànn suñu borom la waaye jëmmi Amadou Ba laa wax ne ku yaakaaru la moom waaw yaakaaru na trop waaw yaa te man foofu daal laaj ma ne yem moom ku ku yaakaaru daal. waaye dañuy wax ni booy xool jamono ji ci ilmu nujum biddewu Pape Djibril Fall moom moo féete kaw biddéewu yeneen opposants ñoom Idrissa Seck ak ñeneen classe à part Ousmane Sonko daal bu demul élection Pape Djibril Fall ci biddéewu moo féete kaw. waaw loolu xëy na moom am mën ay sëriñ wax ko ñoom dañ koo xool ba gis ko kii waaye man côté boobu moom euh, xuus ma tamit am na ci ñoo xamante man euh, comme man ni may ni may ni may jëflantee am na ci duma ma jékki-jékki rek jël turu jàmbur comme ni nit def jékki-jékki rek jël turu kenn xool xool ay mbiram déedéet man googu jot sax amu ko hmm. Hmm. waaye ki may gën ñi may dama Ousmane Sonko xale yëpp dañ ko bëgg mën nga ko tudd ndax dafa bokk ci senegal man ngaa tudd tamit ku mel ne euh, Macky Sall comme noonu mais mën ngaa tudd tamit keneen koo xamante si yow li tax nga tudd ko yow xam nga ko mais ku mel ne Amadou Ba man xam naa ko. Mame Goor Diazaka ak Maître El Hadji Diouf dañuy bokk kanda xanaa ñoom tamit war nañu mën a xool seen i mbir ak yooyu noonu Mame Goor Diazaka moom mënut a fees mënut a concert concert bu cinq nit ñoom. waaw ku mel ne ñoom ñaar ñu nga tudd Euh, bu fekkee ne ñoom dañoo bëgg a posé candidat comme que jamono ji na dañoo toll ci jamono laaj te ñoom seen droit seen droit réew may na leen ñu laaj waaw nan nan nan leen bàyyi ñu laaj waaye am na ci ñoo xam ne xam nañ ne sax ñoom xam nañ ne comme ça demaguñ ca làmb ji waaye xam nañ ne ñoom ab jël tamit lañ fay jëlee waaye nag comme que am nañ courage bay laaj tamit nañ leen bàyyi euh, seen courage ndax loolu ñu dara daal ñëpp mën a dem ci jàmm ak salaam ñu def ko jogante boo xamante ni Euh, lépp ci jàmm ak salaam lay lay lay tegu daal. ci jongante googu noonu nag xel dafa tey ndax Ousmane Sonko ba léegi xel dajul nii war naa mën a bokk jiixi jaaxa am na Ousmane Sonko ndax dina bokkam du bokk élection 2024. waaw Ousmane Sonko moom li ñu def mooy ñaanal ko mu bokk comme ay moromam. man dama koy ñaanal mu bokk ci làng gi comme que comme que ñun waa réew mi soxla nañ ko te bëgg nañ mu bokk. Mm-hmm. yàlla na bokk ak jàmm euh, comme li fi xewoon ñin fi tere woon ñu bokk. ba mu indi woon fi lu mel na ay jéeg yooyu noonu ne ñëpp maasa bokk bu ñëpp bokkee ku mën sa morom comme ça duma comme ni nga koy waxee ñi sénégalais yi gën a bëgg xoole sénégalais yi ki mu gën a jublu ñu tànn kooku mhm. mais Ousmane Sonko buñ desee ci moom ba léegi arrestation ah verdict bi mu génnee ba léegi mën nañ ni suba ginnaaw suba ba nii ñuy waxee yow mën nañ ko faa fekk jàpp ko yóbbu ko te ndax nekkul ci sécurité boo xamante ni war na koo assuré ni mënuñ koo yóbbu waaw am na ñun ñun jàpp ba pare ba pare eh, ñuy doxi tànk yoo xam fexe ñu bokk ci ci ci ci ci élection yi mooy ku mel ne Karim ak Khalifa nan fexe kay ba boole ci eh, Ousmane tamit mu bokk bu ko defee ñoom ñëpp ñu maase bokk rek ñu def ko jongante boo xamante nii bu bu bu bu bu digg doomu la ñëpp maase bokk mhm. te Macky du bokk léegi sëñ bi buñ jugee ci élection yeeg wàllum candidature rek dañuy ñëw ci réew mi bu ñëwee ci réew mi wax ci li ñëpp bokk ci li intéressé ñëpp muy wàllum sport yàggul dara ñu jël coupe d'Afrique jël compétition yu ñu mënti teg ci réew mi dafa mel ni loolu dafa indi cat topp Sénégalais yi ba actuellement capitaine bi di saajo maane bu ñu jógee ci coupe d'Afrique ba léegi gis nañ jafe-jafe yi am demul coupe du monde am na ay jafe ci club am bañ koy sanctionné digganteem ak Leroy Sané digganteem ak yu baree bari ba nii nii nii Al Nassr ñu ngi koy mi ngi koy laaj ngir mu dem fa jafe-jafe yi saajo maane am rab la cat la liggéey la wala lu mu doon sëñ. waa saajo maane dafa amee jafe-jafe cat Hmm? waaw doomu bambali doomu bambali dafa am jafe cat moo tax booy boo ñun ñëpp ñu ko ñaanal ndax mbooleem ndam bu mas am ci àdduna bi rek ñun la ko defal ñun hmm? tamit yelloo na ko ñu ñaanal ko waaye daal moom ci jëmmi boppam hmm. lu mu lu na ndax moom xam naa ne euh, yaakaar naa ne gëm na ñaan daal ndax comme que ah, la juddoo waaw lépp lu koy gën a mën a jariñ lu koy gën a mën a jariñ alxuraanul karim moom moom moom moo koy gën a jariñ. moom Sadio Mané su ko yàlla dogalee mu gisante koo xam ne alxuraan rek lay liggéey. te man ko lool te xam lool. suñ borom mën naa yëkkati war ay ndax mbiram mën naa laa wax ne sax comme tàmbalee gudd. moom Sadio moom Sadio ah, ñu naan na dem Al Nassr ndax carrière am léegi mu jeex ak nangam. bu fekkee ne daal moom am na ndimbali dëgg-dëgg. te ka koy dimbali jaare ko ci alxuraan. yàlla mën na koo dimbali defaraat ko tawféex ba mu gën a àggalee yéene ji nekkoon ci kanam ndax fi mu bëgg a yóbbu moom Sénégal xam nga ne moom bu doon fukk la yéene defagul benn sax moom Jimmy Sadio kon nañ ko dimbali jàppale ko mu mot li yéenam mais sëñ bi dafa mel ni cat gi lii ngay wax du yamul ci yamul ci Sadio Mané coow li daal dañ naan ci équipe nationale bi la Bamba Dieng wa njëkk a jël wàllam jamono ji euh, Edouard Mendy jóge na jóge na euh, fee club am dem na ca naar ya ñeneen ak ñeneen ñi ngi dem actuellement sax Pape Gueye moom moom ay jafe-jafe sëñ bi mbir mi est-ce que xalaat na ni e- nekkul ci équipe bi ba Coupe d'Afrique bii ñu ñëw naru ñoo dóor sax suñ problème suñ waaw bu dee ci équipe bi la xam na ñoo xam ñoo yor wàllum équipe beeg yooyu nañ ci taxaw fexe ba euh, lépp lu ci nekk te bokk ci mu dañ loolu ab liggéey la laaj su ko defee ñoom tamit seen biir képp ku ci yéeg loo xamante ni bokkul ci sa jëmm wala yaa ngi gis say biir doon dox ndax nit koo gis rek ay mbiram doon dox ba ci yàgg mu ami gàllankoor rek dafa war a xool lu mbiram man boo gisee may insist ci listixaar loolu la nit ku ñekk kilifa gu ne da a am kule leen listixaaral xam ne du toog weer wu mu la listixaar lu xool la si wal dara su ko defee dalay wax li nekk ci sa kanam ak lu mën a doon balaa loolaa egsi nga def lu ko fànq ndax nit mën naa am lu baree baree baree bare luy ñëw ci kawam mu def dara loolu loolu defe yow ñoom kilifa yi ne leen suñ borom bindee dañoo war a am kenn ku ne ak la ko la ku yoral dara ci jëmmam surtout lu mel ne ay xeet saxaar xeet seet yoo xamante ni ñu doxee man lool ba lum la ci wax du dañ nga wut ci kenn teg ko sa côté lépp loo santi sa jëmm ju ci bokk ci nga xolloo ko dana la ci wax lu wér. yaakaar naa bëgg ngeen yaakaar naa xam ngeen li tax ñu seet si ko muy boroom xam-xam di nitu yàlla ah moom Serigne Mame Cheikh mi nga xamante ni moom mooy suñu ganu tey bi bëgg nañ la ñuy wax ndax fi ñu doon xaar rek fa la génn. dañ koy bàyyi nag mu tàggu mbokki internet yi nga xam ne ñoo ko doon bàyyi xel fii ci Allô Sénégal sëriñ bi looy tàggatoo. waa ñu ngi nuyu mbooleem waa Sénégal yëpp yéen tamit di leen nuyu di leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg seen beneen émission jërë ngeen jëf.